adlu minka al ilma xabla al amali faltaqini jahla waxut li amali lii jut bi neeti la daa ibdaa shay'in fa anta waaftidaa lii jut bi sabri fi ibadaati aljamil xata utimaha wa kun lii bi jamil xabliya fi ibadati ixlaasa bi muntaha wa xabliya alxalaasa yasir lana jamia ma yanfauna wa kufana jamia ma yadruna barka seeru xadim mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi yéen ñi baaxoo si wul seen télévision TV rawatina seen émission bii di jotaay di ne dellusiwaat nañ comme ñu ko baaxoo def saa su ne indil leen benn thème ci thème lislaam tey nañu fas yéene waxtaan ak yéen ci euh, tom thème bu am solo wala boog tom bu am solo tom boo xam ne lu euh, néew la si jamono ji ku koy sàmmonte te mooy lu jëm ci wàllu muñ muñ nag mu doon lu am solo loo xam ne lislaam dañu ko digal alxuraan ñëw feddali ko yonent bi te du salaa salaam ñëwaat feddali ko aay yu bëri wàcce ci wàllu muñ yonent bi te salaa salaam diggee ci ay ngëneel yu bëree bëree bari dañu gis ne ci jamono ji lu néew la ci euh, nit ñi euh, ci wàllu muñ moo xam xeetu muñ yëpp incha allah ba la ñu teewloo danañ ko leeral dañuy ñëw nag ci lan mooy muñ ci langue arabe bu nee as sabru yaa ni alkafu wal xabs mooy nit ki day téye euh, téye dara moo xam làmmiñam lay téye wala ay cëram lay téye ci bañ a jàmbat làmmiñ yu bañ a jàmbat cër yi bañ a moy kon loolu mooy ci tënk moom lañu tuddee ak asabru ci luxatul arabia istilaahan nag mooy li boroom xam-xam yi dëppoo ci lan mooy sabru sabru mooy xabsu nafsi an fi'li shay'in araadahu llaahu aw an fi'li shay'in naha llaahu anhu mooy nit ki day tee bakkanam bi ci jëf lépp loo xamante ne bi yàlla suñu boroom da ko aaye walla mu téye boppam ba jëf lépp loo xamante ne bi yàlla suñu borom da ko digle kon mooy na muñ ci wéy ndigal yi muñ ci bàyyi ay tere ci buñ ko doon tënk moo tax yàlla suñu ci ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk da cay def yool bu màgg-màgg boo xam ne jullit bu yàlla suñu borom dimbali euh, mën nga cee am lu kawe muñ nag dafa am ay xeet ndax am na asabru ala taa ak asabru an masiyati laahi ak sabru ala aqdaari laahi al muñ ñetti xeet la ñetti xeeti muñ ñoo am muñ bu jiitu bi mooy muñ ci topp ndigali suñu borom maanaam wéy ay ndigalam boobu xeeti muñ la muñub ñaareel bi mooy nga muñ ci moytandiku lépp lu yàlla suñu borom tere maanaam moytandiku lu lay liy jural doomu aadama bi ay bàkkaar xeeti bàkkaar yëpp nga muñ ko ñetteel bi nag mooy muñ ci dogal yi suñu borom di wàcce ci jaam bi te doon yenn saa yi dogal yu métti moom la alxuraan di wax ne yaa ayyuhal lazina amanu asbiru wa saabiru wa wa taqullaha laallakum tuflihun mu waxaat feneen ne fasbir kama sabara ul azmi min rusuli wala tastaajil lahum mu waxaat feneen ne innama yuwaffa saabiruna ajruhum bi xayri xisaab kon nga gis ne aay yëpp yàlla suñu borom mi ngi ciy diggal doomu aadama bi rawatina jullit bi muy muñ tey muñale tey muñale mu joxaat ni exemple ci ne dañoo war a muñ comme ñi yonent yi ñu jiitu woon muñe woon rawatina ul azmi yi muy fa muy diggaat tamit ñi nga xamante ne bi ëllëg dañuy muñ ne yàlla suñu borom dana leen fay fay bu mat sëkk saamu yi saamu di leen audité maanaam saamu di leen xisaab kon loolu mooy wane ne muñ ki koy def am na yool bu màgg lan mooy yoolub aji muñ yàlla suñu borom dafa defal ñi nga xam ne dañuy muñ ñetti mbir yoo xam ne defalu ko keneen ñi koy ñi aji muñ yi dong la ko jagleel ñi muñ la ko jagleel yooyu mooy yan mooy asalaatu minhu wa rahmatu wal hidaaya yàlla day julli ci ñi muñ mooy day wàcc ay xéewalam wàcce yërmandeem ci ñoom ba pare teg leen ci yoonu siraat mustaqim di leen gindi kon ndekam mbokk yi muñ lu am solo la moom la alxuraan di wax ne wa bashiri saabirina allazina isaa asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sadaqallahul azim gis nga yàlla suñu boroom euh, mi ngi bégal ñi nga xam ne dañuy muñ rawatina bu natt wàccee ci ñoom ñu jëlaat natt boobu delloowaat ko suñu boroom moom lay wax ne ñoo ngi de yàlla suñ borom dana wàcce si ñoom ay julleem muy xéewalam wàcce ci moom ay yërmandeem wàcce si ñoom ak njubam kon lii rek war naa tax ñun jullit ñi ñu nangoo muñ bu baax a baax a baax moom lay waxaat feneen tamit ci wàllu muñ muñ day dañoo war a dimbandikoo ak muñ moom lay wax si alxuraan di wax ne wastainu bi sabri wa salaati na ngeen di dimbandikoo ci muñ ak julli kon ndax ku dul muñ dana jafe nga am ndimbal moo tax mu mu indi sax ak ndimbal lënkale ko ak muñ ak ragal yàlla moom la yàlla sunu borom di wax ne balaa in tasbiru wa tattaqu wa yaatukum min fawrihim haza yumditkum rabbukum bi xamsati alaafi min al malaikati musawwamin kon muy wax muy lënkale muñ ak ragal yàlla mu ne boo leen muñee te ragal yàlla ndimbal lu gaaw dana leen ñëwal mooy ndimbal loolu mu defaloon saxaaba yi moo tax mu ne waxaala sallallahu alayhi wa sallam waalam anna nis anna nasru maa sabr yonent bi sallallahu alayhi fedd liwaat ko ne xamal ne ndimbal saa su ne day ànd ak muñ kon ndimbal balaa muy ñëw saa su ne la plupart day fekk jàmm bi nangoo muñ bu ko defee yàlla suñu borom daal di wàcc ak ndimbalam lan may àtte nag sabru at maanaam muñ lan may àtteem bu ñëwee ci wàllu muñ muñ yi am na ci muñ goo xam ne dafa doon lu war ci jullit mu def ko te bu ko deful sax muñ googu dana ko jural moom bàkkaar waaye am na ci muñ goo xam ne dañoo sopp ci jullit bi mu def ko muñ googu nag fa huwa waajibun fil waajibaat wa waajibun anil muharramaat dafa war a muñ ci lépp loo xamante ne bi yàlla suñu boroom digal na ko ko mu muñ ko ba def ko lu mel ni julli tey nit ki bu muñul ba joxe waxtu julli yu ni mu waree bu boobaa da ci am bàkkaar muñ tamit ci bañ a jëf li yàlla araamal koñ bu muñul li yàlla araamal ba sàgganee ko ba def loolu yàlla suñu borom araamal ko mu jural ko bàkkaar ak beneen xeetu muñ muñ boo xam ne dañ koo sopp ci lan ci yi nga xamante ne bii dañ koo sib kon yooyu bari jar yu jar a bàyyi xel la moo tax alxuraan di wax ne wala in sabirtum la huwa xayrun li saabirina soo leen muñee de xam leen ne yàlla suñ boroom mooy mooy aji gën ci ñi nga xamante ne bi dañuy muñ lu mu wane foofu mooy yenn saa yi muñ mun naa ñëw nekk ni doon lu war ngir aay foofu warul mu waxaat feneen ne wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma aaqibtum bihi wala in sabirtum la huwa xayrun li saabin fii dalaa tànn loo nga muñ suñ la tooñee fayul kem lan la tooñ waaye nag boo muñoon la la wax ne mooy li gën kon foofu dalaa tànnaloo kon bu ñu xoolee foofu dalaa tànnaloo ci nga fayu wala nga baale atte charia nag ci wàllu muñ yajuusu laka alqasaas dagan na nga fayu ci kii la tooñ waaye nag kem euh, lam la tooñ kon lan mooy àtte nag mu des ci muñ ak bañ a fayantoo kon àtte ci muñ ak bañ a fayantoo luñ sopp la waaye nag dafa mel ni lu tumuraanke la ci jamono ji ndax ñu bari dañuy jàpp ne nit ki bu la defee lu bon fayam mooy nga def ko lu bon te fekk nit ki bu la defee lu bon fayam mooy nga jéem koo def lu baax ku la yàkkal ci ndabu ndab lu bon yooyu yàkkal ko ci ndab lu baax ndax Cheikhul Khadim day wax ni nit ki li mu am rek lay joxe kon yow da ngaa baax del joxe lu baax bul nangoo joxe lu bon kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon mu ñi ñu gis ne lu am solo la. kon mu des beneen xeeti muñ muñ boo xamante ne musiba bu wàccee ci nit ki musiba bu wàccee ci nit ki misaal nit ki am ku faatu mbokkam mu faatu wala jegeñaale bu faatu li ko war mooy mu muñ jooy mënul ñàkk bu waaye mu bañ a yuuxu bañ fay xotti ay yéreem bañ di wax woy ñàkk naa woy torox naa xeet mel noonu kon yooyu lañuy bañ ci sharia amaa nag ronkañ yi génn nga xam ne boobu xol bi mooy wane mooy tooy bu génnee te àndul ak yuux àndul ak caalit mbokk yi islam mën na koo toléré waaye nag bu ànd yooyu rek bu boobaa day jural nit ki maanaam musiba boobu day doon muñ dafay doon lu war ci jamono jooju bu ko deful day doon da koy jural bàkkaar kon muñ tamit ci wàllu fayantoo luñ sopp la nit ki buñ ko tooñee mu waroon a mun a fayu mu baale xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi waa màkk dañoo xëy bëccëg dara kàmm génne ko màkk ak ay saxaaba waaye bi mu ñëwee di ubbi màkk waa màkk gis mbooloo mi mu àndal ak doole ji mu am ñoom ñëpp dañoo tiit bi leen yonent bi te di sallallahu alayhi wasallam jokk euh, maanaam jekkoo da leen baal kon baale dafa am solo waaye fayantoo ci ak mbon l'islam du ko bëgg kon loolu ñu xam ne muñ am na ci fi muy waree comme ni mu leen ko leeralee waaye am na foo xamante ne bii dañ fa sopp muñ waaye muñ ba léegi tamit ci ñaari mbir yi rek lay tege ci doomu aadama bi soit li ngay muñ dañ koy teg ci sa yaram nga di ko muñ coono bu teg sa yaram nga di ko muñ wala mu doon coono boo xam ne sa bakkan moo koy toggoo yow nga di ko muñ waaye benn bu mu ci nekk moo xam coono bi sa yaram di daj la wala coono bi sa bakkan bi di daj benn bu ci nekk tamit dafa amaat ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi xaaj boo xam ne coono bi wala boog muñ nga dan la koo tànnaloo bu la neexee muñ choix la su la neexee muñ su la neexee doo muñ waaye am boo xamante ni dañ laa obligé nag ne la force da ngay muñ moo waral mu doon ñeenti xaaj ana coono boo xam ne yaram dana ko toggoo te coono boobu bu koy toggoo moom lay soob choix la lu mel ni nit ki di toggoo di liggéey liggéeyu doole moom la soob mu gis bant walla benn matériel bu diis mu yëkkati ko teg ko loolu moom la soob moom la soob kon xeeti liggéey yu diis yooyu nit ki moom lay soob mu muñ coono ba mu cay daj daal di koy def xañ na mun naa mu def ko ngir sàkku ci tiyaaba bu boobaa ñu bindal ko ci tiyaaba ñaareel bi nag xeeti muñ boo xam ne dañoo obligé nit ki mu di ko muñ mun na doon tamit muñ goo xam ne muñ gi ñàkk pexe tax mu di ko muñ lu mel ni nit ki ñu di ko dóor te mënul fayu foofu day muñ ngir ne li muy muñ muñu ñàkk pexe la ndax amul pexe moo tax mu di ko muñ amul benn pexe bu dul bu dul muñ rek waaye ñetteelu muñ bi mbokk yi mooy muñ goo xam ne dafa aju nag ci bakkan doomu aadama bi nga xam ni muñ googu day doon choix ci moom moom moo koy tànn mu neex ko mu muñ ko lu mel ni sabru nafsi an fi'li ma la yuhsin shar'an makruhan lu mel ni nit ki ñu tànnaloo ko ci wàllu charia mu muñ loo xamante ni bii dañ koo sib ci charia mu muñ ko dañ koo sib lu ñu sib ci charia mu waroon koo def muñ ko bañ koo def kooku choix la ixtiyaar la beneen xeeti muñ bu mujj bi mooy muñ goo xam ne bakkanu doomu aadama bi koy def waaye nag ci charia dañ ko ko obligé maanaam dañ ko ko warlul pour mu def ko mooy lan mooy nit ki tey ci misaal mu ñàkk soppeem ku mu bëggoon mbokk mu ko bëgg mbokk mu mu bëggoon mu ñàkk ko charia nag ne ko da ngay muñ doo fa nekk di yuuxu di xotti say yére soo ko defee ñu bindal la kon sabru boobu dafay doon ittiraar yi charia moo ko imposé pour mu muñ ko ndax yooyu yëpp kon nga gis ne muñ yaa ngi noonu ñett ñeenti xeeti muñ yooyu ñoo am ñu ñëw nag ci nit ñi ak ni ñuy muñee xeeti muñ ñu am buñ xoolee doomu aadama yi ñeenti xaaj lañ séddli ko ci wàllu muñ ahlu sabru wa taqwa xaaj bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne lu munti xew ñoom dañuy muñ waaye muñ gi ñuy muñ dañ koy boolewaale ak ragal yàlla wa hum allazina an'ama allahu alayhim min ahli saadati fi dunia wal axira sabiru ala taatihi wa sabiru ala tarki maharimihi mooy ñi nga xamante ni bi yàlla suñ borom moo leen xéewalee ñu war a bokk ci ñuy texe àddina ak alaxira ba moo tax dañuy muñ ci wéyee ndigalu suñu borom yi waaye di muñ ci bàyyi ay tereem kon ñoom ñaar yëpp lañ boole dañoo muñ boole ko ragal yàlla ba muy xaaj bu njëkk bi ci nit ñi ñaareel xaaj bi naasu naasun indahum taqwa bila sabri am na ci nit ñoo xam ne mun nañ muñ lool waaye nag amuñoo ak ragal yàlla fa xad yakun hunaka rajulun aabidun zahidun nga gis ko mu doon nit koo xam ne day jaamu yàlla day julli day woor moo dàq woor moo dàq julli lépp lu baax da koy def waaye nag saabu yàlla suñ borom wàccee nattoom ci moom day caalit day jàmbat day jaaxle lu ne dana ci dugg kon kon kooku am na ak ragal yàlla waaye nag amul ak muñ boobu tamit xeet la ci xeetu doomu aadama yi mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy la naasun ladayhim sabrun bila taqwa wax naa ci njëkk ki mooy ki ànd ànd ak muñ ba pare am ragal yàlla ñaareel ki mooy ki nga xamante ni bii am na ragal yàlla waaye amuluk muñ ñetteel gi nag mooy ki nga xamante ne bii ladayhim sabrun bila taati ñoom mun nañoo muñ waaye amuñu benn ragal yàlla kooku mooy troisième catégorie ci nit ñi lu mel ni kàccoor yi lu mel ni sàcc yi lu mel ni agresseurs yi nga xam ne boo leen di dóor sàcc boo koy dóor dana muñ métitu dóor ba ba supporté ko dana muñ tamit coono ya muy jànkuwanteel ba mun a sàcc dana muñ coono ya muy jànkuwanteel ba mën a agressé nit ki dana muñ tamit coono ya muy jànkuwanteel ci xas seen koy xas ak yépp ba atteindre objectif am waaye nag la muy atteindre objectif am loolu poussé wu ko ci mu ragal yàlla ndax la muy def yëpp ar islaam da ko araamal donte nag muñ na waaye nag muñ googu poussé woo ko ci ragal yàlla àndul ak ragal yàlla kon boobu mooy troisième catégorie boobu tamit moo gën a yées bii di ñëw bii di ñëw sax walla moo ko gën a yées ñeenteelu xaaju doomu aadama yi mooy nit koo xamante ne bi benn moo ci gën a bon amul ak muñ amul ko ragal yàlla wal iyaasu billaahi koo xam ne du muñ amul ak muñ ci wéy li mu wéy war a wéyee ba noppi amalu ak ragal yàlla kooku mooy bi gën a yées kon ñeenti xaaj yi moom na doomu aadama yi xaaju xaaj bu njëkk bi mooy ki nga xamante ne bii dafa ànd dafa mën a muñ ba noppi ragal yàlla kooku mooy bi gën a kawe ci ki gën a kawe ci doomu aadama mooy ki nangoo muñ li yàlla suñu borom digale ba mu pare moytandiku li muy tere mooy de dafay muñ ba boole ko ragal yàlla ñaareelu xaaj bi mooy ki nga xamante ne bii tege ci deuxième catégorie bi mooy ki nga xamante ni bii dafa am ak ragal yàlla waaye nag amul ak muñ ñetteel bi mooy ki nga xamante ni bii mooy troisième position bi mooy ki nga xamante ne bii am na ak muñ waaye amul ak ragal yàlla ñeenteel bi te mooy bi gën a yées mooy koo xam ne amul ak muñ waaye amul ak ragal yàlla kon bu ñu jógee ci loolu tamit danañ ñëw ci catégorie muñ yàlla yi. waxoon nañ la ci tàmbalikaay bi ne la muñ ñetti xaaj la xaaj yooyu dañoo ëppalante daraja maraatibu sabru kon la ñuy dugg kon fa sabru maraatibu fa sabrun ala taatillaahi ala manzilatan min as-sabri anil maasi kon catégorie muñ yàlla yi bi ci gën a kawe mooy muñ ci topp yàlla wéy muñ ci wéy ndigal yàlla yi muñ ci nangoo toggoo xeeti jaamu yàlla yépp nga nangu ko muñ ci woor nangoo muñ ci joxe julli nangoo muñ ci lépp loo xamante ni bi yàlla suñu borom ci tënk lépp loo xam ne yàlla suñu borom digle na ko nga di ko muñ muñ googu mooy muñ gi gën a kawe ci xeetu muñ yi ndax moo gën a kawe muñ ci bàyyi mooy yàlla yi deuxième catégorie bi bi tegee ci ginnaaw premiere bi mooy muñ ci bàyyi mooy yàlla yi moytandiku mooy yàlla yi mooy ñëw deuxième position ci bàyyi fen bàyyi lu araam bàyyi jëw bàyyi mooy yàlla xeet yu xeet yooyu yëpp nga bàyyi ko kooku moo ñëw deuxième position troisième position bi mooy nag nga muñ ci natt yu yàlla suñu borom di teg ci yow natt yu feebar natt yu ñàkk xeet yu mel noonu natt indi la ay jafe-jafe ci àddina nga di ko muñ te yàlla suñu boroom tax kon dogal yooyu suñu borom di wàcce ci daam bi bu ko dee muñ boobu mooy troisième catégorie bi nga xamante ne bii euh, mooy maraati bu sabra ni ko noonu tamit fa sabru alal waajibaat ala anwaai sabr bu ñëwee tamit ci euh, muñ ci xeetu warteef yi boobu moo gën a kawe hmm, ci muñ ci loo xamante ne bii nekkul warteef ci jaam aadama ndax muñ ci wéyee farate yàlla yi moo gën a kawe muñ ci sunna yi moo gën a kawe muñ ci mustahabaat yi sopp ni tam moo gën a kawe muñ ci li yàlla suñu borom araamal ni ko tamit muñ ci bàyyi lu araam ak yool ban cay joxe tamit moo gën a kawe euh, muñ ci natt yi nga xamante ne bi moom la yàlla suñu borom di teg ci jaam bi ndax buñ xoolee loolu lépp musiba comme ni ñu ko leeralee sànq nga xam ne bi si njëkk mooy sabro ala taa sabro anil masiya sabro fil aqdar moo tax ñenn ñi ne sabru ala ak sabru an ak sabaru fii sabru ala taatillaahi sabru an maasiyatillaahi sabru fi fil aqdaar kon ñetti xeeti muñ yooyu ñu jàpp ne kon bi ci gën a kawe comme ni ñu ko leeralee sànq mooy fexe muñ nag ci toggoog xeeti jaam yàlla yi deuxième catégorie mooy muñ ci bàyyi li ay yàlla sunu borom araamal waaye ñetteelu catégorie bi mooy fexe muñ nag ci dogal yi nga xamante ni bii moom la jaam bi di wàcc. nga gis ne foofu doomu aadama yi dañ cee rawante te xamuñu ne nga fexe di wéyee li yàlla suñu boroom digle fexe toggoo xeetu jaamu yàlla yooyu moo gën a kawe ndax nit ki bu wéyee li ko yàlla suñu borom digal mu di ko def ba ma ba pare di moytandiku li muy tere bu musiba wàccee ci moom mu muñ ko kon day doon insaan kaamil bu boobaa day matale li ko yàlla suñu boroom sant kon moo tax yonent bi salaa salaam ci benn xadis sax mu ne as sabru nisful iman ngëm buñ ko doon xaaj ay xaaj muñ mooy genn wàll ngëm yàlla kon ku yàlla suma borom defal tawfiix ci nga nangoo muñ rawatina nag ngay muñ ci toggoo xeeti jaam yàlla yi ak di muñ ci bàyyi li muy araamal ak di muñ ci euh, bu musiba wàccee nga muñ ko kon ku yàlla suñu defal loolu lu am solo la mu des nag yan domaine lañu war a muñee domaine yi war a muñee mooy bi si jiitu mooy asabru ala balaa i dunia danoo war a muñ ci nattu yi yàlla suñu di wàcc ci àddina nattu yi ne am ci àddina domaine la boo xam ne dañ ci war di muñ ñaareel bi mooy muñ ci xeeti bànneex yi nga xam ne bakkan bi dañu koy pousser da koo bëgg xam ngeen ne bakkan moom bànneex da ko bëgg waaye ñetteel bi ñu war a muñ tamit muñ tamit li nekk ci loxoy nit ñi muñ ci bañ a jël luñ moomul ndax ki agressé bu fekkoon xam na li ci muñ la muy agressé wala sàcc xaalis ba muy jël mun naa am sax mu doonoon wërsëgam wu lew waaye yàkkamti gum yàkkamti tax na mu jëlee ko amee ko ci lu araam kon muñ ci li nekk ci loxo yi nit ñi nga bàyyi ko ak ñoom dafa bokk ci xeetu muñ yi am solo waaye muñ tamit ci alal ji yàlla suñu boroom jox ci ay soxnaa Euh, ay doom ak xeetu argent bi mu lay jox xaalis nga muñ ca loolu ba la ci àqi suñ borom nga di ko ci joxe boo ci waree génne asaka génne ko ci boo ci waree saraxe saraxe boo ci waree dimbali koo ci war a dimbali dimbali ko ci teg ci sa say njaboot nga teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim nga xam ne yooyu du la wor loolu muñ la laaj ndax joxe alal neexul ndax alal ak bakkan dañoo lënkaloo waaye bokk na ci domaine yin ñu war a muñee ba tey muñ tamit ci topp yàlla te boobu mooy bi gën a màgg waxoon nañ ko ci xeeti muñ yi nga xamante ne bi euh, moo gën a métti ci bakkan xam ngeen ne bakkan moom li ko gën a yomb ci moom mooy mooy yàlla li gën a jëfe bakkan mooy topp yàlla kon kon nañ jaam yàlla tey muñ ci xeetu jaamu yàlla gi ni jaamu yàlla lu jafe la waaye bokk na ci xeetu muñ yi war a muñ sax muñ ci coono woote jëm ci yàlla ndax loolu dafa laaj muñ danga nga waar nit ñi ñu naan kii dafay dugal nit ñi safara kii dafa soofe li muy wax fu ko teg fu ne danañ la fa dëkkale waaye yow mi wax te yàlla tax waxal rek ndax loolu lañ digaloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mu jotelee waxi suñu boroom kon yow mi boroom xam-xam yàlla suñu boroom dénk la alxuraanam ji ak xadiis bi ak waxi yonent bi sallallahu alayhi kon yow tamit fexeel di jotale rek ci anam bi gën rafet mu ànd ak yar ak teggin waaye am na xeet muñ tamit muñ ci nit ki bu ko nattu daloo bu kon bu natt wàccee ci moom wala muy muñ tamit ci jamonoy guerre ndax dafa laaj muñ waliyaas billaah ndax boobu day tasanteeg noonu kon bu boobaa muñ foofu mooy dimbali mooy tax nit ki mun a atteindre objectif am ndax dafay xeex ak noonu yàlla kon pour yàlla suñu borom wàcce ndimbalam ci ci moom moomu jullit bi faaw mu muñ bu muñee rek ndimbal daal di ñëw gis nañ ko ci ay misaal yu bari ci waa ahlu nga xam ne 313 lañu woon yéefar yi doonoon junni xam ngeen ne ci kalkin junni ñoo mën 313 waaye 313 yi ngëm gën ngëm yàlla ñoom saxaaba yooyu ànd ko muñ nga ca lay suñu borom wàccee ndimbalam ñu daal di gañe kon ñu xam ne àddina bi mu xam ne kenn moomu ko ku yàlla mu xam ne ku fi am yàllaa ko jox waaye ku ku fi ñàkk tamit yàllaa ko xañ mooy buuri buur yi mooy xool ku ko neex mu def ko muy buur xool ku ko neex mu def ko muy président xool ku ko neex mu def ko muy imaam xool ku ko neex mu def ko muy nangam ba ër bu ko neexee mu jëlaat nguur googu joxaat ko keneen kon bu la yàlla suñu borom joxee nguur bu ko jëlaatee mu muñal bul ne du ma ko joxe ndax yàlla suñu borom mooy xool ku ko soob mu jox ko nguur gi xool ko ko heure bu ko soobee mu jeexal ko kon bu sa mandat jeexee xamal ne sa mandat jeexal nga muñ te yàlla tax bokk na ci li ñuy tamit pour ñu mun a muñ ñu xam ne fay yàlla suñu borom am na yool bu rëy bu dencal waaye muñ yi waaye muñ yi dong am loolu tamit bokk na ci li ñuy dimbali ñu xam ne kon muñ lu am solo la. ndax wax naa la sànq ne la muñ mooy genn wàllu ngam yàlla bokk na ci li ñuy dimbali ñu ñu wóolu yàlla ci ne suñ nekkee ci njàqare suñ muñee yàlla suñ borom dana indi solution maanaam dana indi ndimbalam dana ñu génn ci xat-xat yooyu wóolu yàlla gëm yàlla nag bokkul ak wóolu yàlla suñ mag ñi baax ñi yàlla na yàlla gërëm du ñu wóolu woon yàlla gëm yàlla ba noppi wóolu yàlla asiqatu billaahi lu am solo la kon na beneen yoon danañ ci gën a waxtaan ci tem ci nit ki wóolu yàlla ak joxe ci ay misaal xam ne waxtu duñu ko dul may ndax yàlla suñu boroom fu mu indee jafe-jafe indi na fa ak yombal fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran kon nit ki sax jullit bi bu nekkee ci ay jafe-jafe na kontaan ne xam ne yombal yombal mi ngi ñëw bu nekkee ci ay xat-xat na sant yàlla muñ te xam ne bu fa jegee rek ay yombal yombal mooy mooy ñëw ci moom waaye bokk na ci li ñuy dimbali tamit pour ñu mën a muñ am ak muñ mooy di dimbandikoo ci yàlla di sàkku ndimbal ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak di wakkirlu ci moom di wéeru ci moom moom yàlla suñu borom subhanahu wa ak saa su di sàkku ci moom ak ndimbal ndax yonent yàlla Muusaa lu mu wax dane inna ard lillaahi yurisuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ne bi mu sonalee nitu Moussa yi ñu jaaxle Moussa da leen woo ba mu ñëw mu ne leen xam leen ne suuf sii yàllaa ko moom yàlla mooy xoxool ku ko soob mu donnale ko suuf si te xam leen ni lu mu suuf si lu mu yàgg-yàgg ñi ñi ñi ragal yàlla doog ñoo koy mujjee kon lu baax fu mu ti nekk ki ragal yàllaa koy mujjee waaye loolu dafa laaj muñ ragal yàlla daa laaj muñ kon lépp day delluwaat rek ci muñ kon nit ki bu muñee rek lépp lu muy wut dan yàlla suñu borom ci àddina àllaaxira da koy mujj day mujj tege ci loxoom muñ nag mënul ànd ak yàkkamti waaye bokk na ci li ñuy dimbali mbokk yi pour ñu am ak muñ mooy ñu gëm ne yàlla suñu borom wàcce na ay ndogalam ak ay natoom ci ñun yooyu nag dafa doon ci dimbali nit ki pour mu mun a am ak muñ ndax xañ na bu natt yooyu ñëwul woon ak dogal yooyu mun naa am doo muñ foofu lay seetloo waaye nag muñ gis ngeen yooyu mu wax sànq waaye muñ tamit am na ci ay nit ñoo xam ne dañoo am sikk ci xeeti muñ yi yoon wi ñuy jaar pour muñ ay am sikk day am gàkk-gàkk bokk na ci gàkk-gàkk yooyu walla sikk yooyu mooy yàkkamti wax naa la sànq ne la ñu bëri ci ñun li suñ jafe-jafe mooy dañoo yàkkamti te muñ àndul ak yàkkamti waaye nag xuliqal insaani min ajalin kon moo tax xañ ne bind googu ñuy bind ci yàkkamti moo tax suñuy mbir ñuy yàkkamti waaye nag muñ àndul ak yàkkamti ndax boo muñee ndànk-ndànk rek fu yàggee rek fa nga bëgg egg incha allah da fa egg waaye bokk na ci yi nga xam ne sikk la ci wàllu muñ te kum nekk ci yow nga fexe koo dindi mooy gaaw a mer ak di téye mer ndax mer mënul ànd ak muñ kim xas ba mer moomatul boppam moo tax yonent bi tey sallallahu alayhi wasallam ci masal ñu ne jàmbaar dëgg mooy ki nga xamante ni bu bu meree day téye boppam ba du def lu mu warul def wala mu wala day téye boppam ba du def ëllëg lu muy réccu gis nga ndax mer baaxul ndax ner da lay ba doo mun a muñ ala sabili misaal xam ngeen yonent yàlla yunus alayhi salaam ba muy woo ay nitam nitam bañ koo dégg mu mer ca loola ci ko yàlla suñu boroom nattoo ba mu jëlee gaal jënu wann ko waaye bi mu ko wonee nag ba mu nekk ci biir jën ba ci la xamee njariñu muñ moo tax yàlla suñu borom di la wax ne fasbir li hukmi rabbika wala takun ka saaxibul xut na muñ ci attey sa boroom ci nattu say borom ci ndogalu sa borom ba mel ni yonent yàlla yunus ma mu nattoo woon ci jën wa ko yooyu yëpp ay leçon la yu ñu war a jël ci wane ne muñ doonul lu yomb boo demee ba jaaxle rek ne muñ naa wala ñu naan la muñal nga ne mënumaa muñ ku mënul muñ amul moom koñ nag naan lii laay lii laa bëgg muñ lii bëgguma koo muñ looloo fi nekk waaye bokk na ci liy gàllankoor ba léegi muñ mooy nit ki dem ba naaw bu doon dafa nekk ci lu bon mu ne ah garaaw man daal mënutuma baax yeboo mu nekk ci limuy muy continuer li mu nekk naa ci nekk doomu aadama du naagu ndax naagu dafa sorewante ak muñ moo tax ni yonent yàlla yanquba alayhi salaam doon moytandikuloo doomam yi ci ñu naagu moom la wax ne yaa bu ne izhabu fataxasasu min yusuf wa aqihi wala tay asu min rawxillaahi ba yonent yàlla yusuf alayhi salaam sànkoo te ñoom ñoo ko sànkoon ñu toog mënut ñoo dem toog ay at mun ñu koo gis Yankuba da leen woo dafa woo doom yi ba mu ñëw mun leen dem leen seeti Yuusuf dem leen gëstu Yuusuf waat leen Égypte ngeen seeti Yuusuf bu leen naagu yàlla suñu borom yërmaane yàlla lu yaatu la dem leen seeti Yuusuf waaye gis nga ban demee leen ko gis kon naagu wóorul nekk ci lu bon ne man daal ah lii jaratul may jaamu yàlla jaratul may soppeeku moom daal lii dama damay dem c'est fini wala nga dugg ci benn projet wala ngay jàng ci misaal examen jot nga échoué benn at nga naa ah, man daal jaratul may jàng examen bi damay sonal sama bopp rek loolu dafa bokk ci yaasu mu muñal lu ci yàlla góorgóorlu waatal yàlla suñu borom boo defaatee mën na laa joxat ndax nit ki bu nekkee ci benn mbir nekk ci sax ci taw ko bàyyi bu yàggee suñu borom yàlla suñu borom wan ko ci ay bunt yu leer kon yooyu dafa doon yu am solo ci xeeti muñ yoo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la xam ngeen ne suñu wasila Cheikhuna al Xadim li mu am yëpp li ko ko may mooy muñ li mu am yëpp nag nga xool xeetu jaamu yàlla yi yim daan togg nga xool ci njabootam gii yeneen fi yàlla doolee bàyyi nga xool xeetu jaamu yàlla yi ñuy togg kii fanaani naafile bu bët set yeewu àndaat doomu aadama yi nga xam ne duñ xaar fenn nelaw duñ xaar fenn nelaw ñun kañ suñ classe gi ñooy tëdd di xaar nelaw ñëw ñu nelaw waaye ñoom duñ xaar benn yoon nelaw xanaa nelaw dab leen ci yoon bi ca la nekk te du yàgg sax ñu yeewuwaat yeesaat tàkk nekkaat ca lañ war a nekk muy jaam yàlla loolu lan moo gën a kawe muñ googu kon ñun dañoo am ay exemplaires yu leer yoo xam ne jaruñu di ko wuti feneen yu nekk suñ kanam ñu jàkkaarloog moom saa su ne ñu di leen gis ñuy toggoo ay xeetu jaamu yàlla yi metti lépp loo xamante ne bii dafa safaanoog lu suñ boroom digle kenn du leen ci seen te kenn du ci seen tamit seen i njaboot mu mel ni nag muñ jamono jii dafay waaj a rawatina nag ñun ci ndaw ñi nga xam ne muñalante day dem sax ndax nit ki bu amul ak yërmaande dana néew mu am ak mu mun a muñ da seetlu ci kaar yi tataay wala kaar rapide yi wala njegejaay nga gis mag mu taxaw wala soxna su taxaw boot nga gis xale bu ndaw toog ci sees bi toog xool ko ba mu leer na ko ne kii mag la mu tëdd nelaw mel ni ko ko gisul wala mu yore portaabalam mel ni ku ko gisul xale bi def loolu xanaa daa fàtte ni ëllëg moom mën naa màgg ba doon ab mag sóoraalewul ne moom war ëllëg war naa doon paa wala mu doonu meer te bu boobaa dana bëgg ku ku ko may mu toog kon muñ ga ngay muñ ci jóg jox ki la mag sees ba jox ko mu toog yow nga taxaw muñ googu ndax yaa ko ëpp kàttan tiyaaba ju mag la wàcce sa bopp sax dafa laaj muñ wàcce sa bopp oyofal sa bopp toroxlu ci ci kanamu suñu borom suufeel sa bopp ci kanamu doomu aadama yi loolu lépp muñ la laaj ndax nit ki bu amul muñ muñ ko muñ sax day dem ba ci ki la tane ak ki ñëw jàmbat la soxlaam nga am soxla comme moom yow nga muñ sa soxla faj soxla am ngir lan ngir yàlla suñu boroom ak yaakaar gi mu am ci yow nga fajal ko soxla moo tax lépp loo gis dafa laaj muñ kon nga Cheikhul Khadim tukkeem bu rëy boobu ba mu demee ca géej gi waxtu julli jot muñ gu mu muñ pour toggoo xeetu jaam yàlla ak bañ waxtu wi faat ko moo tax mu sànni deram ci géej gi waaye gis nga ba mu wóoloo suñu borom ak muñ nga muñ yàlla suñu borom xool nga fa mu ko taxawoo mooy julli na ci géej gi ba noppi delluwaat ca bato kon loolu muñ la at yóbbu ko Gabon mu nekk fa toggoo fa xeeti mbugal bu ne tubaab bi teg ko teewul mu di ko muñ ngir wéele mission suñu borom kon yow min dénk mission fii ci àddina wala joxalee responsable wala jox la ay ndombay tànk war nga nangoo muñ ci téye responsabilité boobu ba defee ko ni ko suñu borom bëggee bu dee doomu aadama yi ñoo la ko dénk tamit nga defee ko na ko doomu aadama yi bëggee ba am seen ngaram moo xam ndombay tànk àddina la wala ndomb tànk boo xam ne yàlla suñu borom moo la ko jox lenn lu ci nekk nga téye ko comme ni ko yàlla suñu borom santaane kon mbokk yi mu mel ni muñ suñ ci doon wax fii ba suba du jeex waaye ñu xam dara mun ñu ko am fii ci àddina bi lu ñuy jariñ dara mun ñu ko am fële ci àllaaxir bi lu ñuy jariñ lu dul ne loolu dañ koo toggoo ci ak muñ kon muñ rek mooy li jariñ jullit bi ci muñ ci wéye ay ndigal yi suñu borom santaane waaye muñ ci bàyyi ay tere yi nga xamante ni bii moom la suñ borom tere ci mboolem lu araamal te nag nangoo muñ nag ci bu nattu ñëwee ñu xam ne natt bi lu yàgg-yàgg dana jeex ndax àddina bi lu dul jeex amu fi ay fan la ay weer la ay at la ay siècle la mu daal jeex kon mu mel ni waxtu wi cate na kon ñi ngi gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp di jéglu bu baax ci mboolem ko ñuy seetaan wala nga ñuy déglu wala nga ñuy wala ngay suivre émission bi kon ñu ngi koy jéglu bu baax di santaat suñu borom subhanahu wa ñu xam ne nag xañ na ci atum 2016 ci atum christianisme ñi ngi koy jeexal di duggaat ci atum 2017 ñu war a mën a jàngataat bu baax ci année bii di ñëw muy année 2017 ci nan la ñuy mën a yeesalaatee suñu ngëm ci suñu digganteem ak suñu digganteeg borom ak nan la ñuy yeesalaatee sunu ngëm ci sunna si yonent bi tedd salaa salaam waaye nan lañuy mën a. dollee mën a liggéeyal Cheikhul Khadim comme ni mu ko bëggee ndax njàngat yooyu lañu war a am en tant que jullit waaye ñu xam ne feet yi du suñuy feet ñun ndax suñu feet l'islam tracé na ko ba noppi te ku nekk xam na ko kon yëkkati sa alal di ko ci dépensé ci en tant que jullit bàkkaar la jural kon boo amee cadeau yooyu joxe gi daal del xaar ba tam xarit ñëw nga xam ne mooy fin d'année atum jullit nga di ko joxe bu la loolu rawee gàmmoo ngi fi bu la loolu rawee màggal a ngi fi korite ngi fi tëbaskee ngi fi yooyu yëpp ay feet la yoo xam ne feetu jullit la jullit mun nañ sa occasionné bu bëggee bëggal njabootam bëgg mu daal di leen di bëggal ci loola jox leen ay cadeau ndax loolu dana tax xale yi bu màggee doolu lay xam feet yi leen lislaam moomal kon mbokk yi ñu ngi tuub baax in uridu l islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi